li coow li mooy mburoog soow daal dinay fuur fi mu ne xam nga lan naan mango ba dafa fuusaa Dakar Times naan man mburoog soow dee su ko wax bu yàqoo fuusaa fuur la yéene bi naan man fi mu ne kay ataayaa xew ataaya bu saf mant maanaam naanaa niki démb nag grand théâtre la fa amoon teex-teex may ree akolaatante tàppante mbagg diggante nag Khalifa Babacar Sall Habib Sy ak Soham Wardini moom njiitum réew mi daal di rafetlu bu baax a baax nag liggéeyu Barthélemy Dias maire bu ndakaaru fii ci digg ndakaaru yéene kaay bi naan man rafetlu bu baax a baax diggante Khalifa Ababacar Sall ak président Macky Sall ak Habib Sy waaye tam Barthélemy Dias tribune yéen a kaay na déet fi mu ne kay nañ ko waxte Fatou Mbaate Dundu Khalifa Ababacar Sall Barthélemy Dias Habib Sy daal dinañuy nag sukku jébbalu ci kanamu président Macky Sall la waaja naan la noonu wa bëggoon dalu la tribune yéen a kaay na ma la dal Sall dal Karim may Wade lii la Barthélemy Dias bañ mu dal ko l'exclusive yéen a naan man dialogue ba kay dafa daal di tàmbali faf diggante président Macky Sall Khalifa Ababacar Sall ak Barthélemy Dias comme mburu ak soow président Macky Sall nag dem bay rayal teeñ Barthélémy Diaz le regard yéeni kaay naan maan Sall dafa dalal Khalifa ni gees nag tàmbalee may tuuti sourire Barthélémy Diaz le quotidien le quotidien naan maan Sall yi daal gise nañ moom président Macky Sall ni gees Barthélémy Diaz ne ko dinaa wax sa baay ne ko liggéey nga vox populi naan maan ca grand théâtre ni ki démb Khalifa Babacar Sall Barthélémy Diaz Soham Wardini ak Habib Sy ak président Macky Sall nag suwe nañ fa seen théâtre bu neex waay Sall di leen fa piis leen kaay leen Barthélémy Diaz naan lu mën a amit maa ngi rafet lu bu baax a baax di la jaajëfal yow président ci engagement bi nga am nag ci peggug maire bu ndakaaru le temps mooy yéen kaay naan man dialogue ba tàmbali na laataa waxtoom wala it muy ay naxee mbaay président naan Barth yaa ngi doxal de doxal gii ngay doxal naa ko wax Jean Paul Diaz tribune yéen kaay naan man bu nekkee danga ni diw sab noona noon boo bee bu taxawee di la tagg dëgg-dëgg am na lu ca soppeeku wala it yaa ngi doxal ay mbiram le temps yéen kaay en tout cas démb ako laadante nan souriirante nan sourire complice sa mbaggug moroom di piis ak rogo jeeru sa moroom bés bi le jour ne ma seen wu njëkk ngi loo xam ni nag wane na ni dialogue bi dëgg-dëgg tàmbali na sàll naan kon en tout cas Bart yaa ngi doxal Bart may ko réegoo xam ni maar day taali boole ko di joxoñ président ca wet ga Khalifa Babacar Sall di akkalaatanteeg président Macky Sall laas yéene kaay naan maan en tout cas jalog bi moom ñi ngi xaatim daar daar nes ko tegee ci réew mi démb nag l'info yéene kaay naan man moom président Macky Sall lu mu nekk nekk à l'aise ak Khalifa Babacar Sall daal dinay gën a relax nag ci digganteem ak Bart Barthélémy Diaz Bart nga xam ne daanaka mën mënees na ko woowee bête noire moom Sall démb daal seen tex-tex may ree ji doy na waar lool sursu a naan maan fi ne day Sall ak i gaayam ñuy mën a waree pour dialogue daal ji am ci réew mi ni ki démb nag noonee lañ ko daal di wanee Khalifa Babacar Sall boo xam ne ex prisonnier am la woon moom Sall ñu gis leen ñoom ñaar ñuy akolaadante ca wet ga ma ki Sall di fa tagg ba maa day taali Barthélémy Diaz président Macky Sall mel ni koy xamal naan kon liggéeykat nga doxalal Sud Quotidien naan maan fi mu ne day président Macky Sall yëpp mi ngi ko teg ci maire yi ma leen di piis benn par benn le mandaa yéen a naan fa doon xasan kenn ñemewu ko wokk la sàll lelli fi mu ne yemul ca wokk ga critique yéen a kaay naan man en tout cas président Macky Sall moom mooy doxal loo ci manti déggit sàll ma ngay déroulé la mu bëggoon ci réew mi démb ci juróom benneelu ndaje bu forum mondial bu économie sociale ak solidaire di bu njëkk boo xam ni Afrique dalloo na ko Sénégal dalloo ko ñu gis fa théâtre boo xam ne am na fa maar dey taali yéen kaay bi naan maan xëy na nag ni événement bi toll dayoom daal moo yëngal deretu gaa yi président Macky Sall mi nga xam ne mayul woon meer yi fi nekkoon dara daanaka tagg leen ci seen jëf ju rafet woon Sall da cee jéemul woon lenn démb nag moom président Macky Sall moo moomee moo daal di gërëm Barthélémy Diaz critique ne ko en tout cas ci yoonu dialogue la ñu nekk te moom Khalifa Babacar Sall ay ñoñam ñoo ni ko wuy jil source a nan ko déet waxul day dem ak du dem de ne nag ñaar ci basam dong ñoo ne dañuy dem Pikine ak Tamba xaaf nag tontoogul ndax day xaar Sall daal di wax dëgg-dëgg dialogue bi nan lay demee l'enquête ko di jeene ma man la fi mu ne ak fi mbir yi am na ñoo buy nu wuy jiwul tàbbi géej bi fi mu toll nii ci wàllu calcul la l'observateur naan weesu nañ foofu de dialogue bi de fi mu ne président Macky Sall mi nga xool nees ko talalee ci réew mi dialogue dina am ak du am moom yitteelatu ko direct news daal dina ma coow li moom moo di diggante Khalifa Babacar Sall Karim sa Wade kan moo cay gloria bi nga xam ni président Macky Sall waxoon na ko ndax ci jamono bañ ko doon jiiñ buroog soow moo Idrissa sek président Macky Sall dafa ni gees idi ne ko fi mu ne de poñse bi neex na lool te dana dàqati ndax am na kenn koo xam ne ñëw na te mooy Palais Gloria bi Khalifa naan toog waxtaane réew mi farata la ca pegg ba Karim Meïssa Wade naan buñ ma amnistie fi mu ne mu mel ni waxatuñu waxu amnistie gi nag laaj wa mooy ndax Karim Meïssa Wade dafa ni moom it lu ma am baax na mbaa du dialogue bii nag mooy lijjanti diggante Karim may Wade ak président Macky Sall fi mu ne nag coow li mooy lam-laamee amatul diggante Khalifa Ababacar Sall Karim Meïssa Wade jege nan lool Sall ngaari lam tooro burgede l'enquête ko di jee naan fi mu ne nekk sa bopp la yitteel diggante président Macky Sall Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall Karim Meïssa Wade jamonoy calcul dëgg-dëgg ci la ñu nekk te dialogue politique boobee nga xam ni président Macky Sall woote na ko mi ngi yëngal bu baax a baax yeewu askan wi diggante Khalifa Ababacar Sall ak Ousmane Sonko boo moytul mu yàqu tas ndax nag Khalifa Karim Meïssa Wade moom dialogue bee leen jig réew mi quotidien naan maan Khalifa Ababacar Sall mi ngi séq beneen jéego jëm ci président Macky Sall Déthié Fall naan kon bul ma woo ndax topp ma la 24 heures yéen kaay naan maan fi mu ne day politiciens ñoo téye réew mi di soppiku ni kakatar nu leen neex mel askan wi fi mu ne amuk njàqare akuk jafe dëgg-dëgg fi mu ne gëm bugaan géy tane ci yéene kaay bi naan fi mu ne réewum Sénégal ñaari façon politicien moo am am na ci ñoo xam ne ak tey ñoo yàq yaxeet réew mi am na ñoo xam ne fi mu ne dañoo taxaw ci tànku sangaat réew mi waaye tam joxtu tànk yi seen gëdd bi nu ko Walf Quotidien naan kon bugaan may ma rek ma ñëw fi mu ne daal lan ne woon dañoo bëgg isolé Ousmane Sonko berka ñanga ca te boo moytul nag dana antu ci mim réew bugaan géy dane ci tribune naan kon ndax nag fi mu ne la ma jor nga lan mooy yitte bi 2024 Sénégal ci sàcc yi nga xam ne ay gerkat lan nekk ci république bi fi mu ne nag président ki Sall loo ko mënti waxit félicité ko da caa gën ndax nag tax nañu xippi suñuy gët ci politiciens yi nga xam ne ba Sénégal moomee boppam ak tey ñoo yàq réew mi daf ci am ñaari xeetu politiciens yoo xam ne sàll moo tax ñu xàmmee leen ñi nga xam ni defar réew mee leen tax a jug ak ñi nga xam ne 1960 ak tey duufal seen poche moo leen tax a jug nguur gu ñëw ñu ànd ak moom fi ne système bi ñu yore dañ ko war a tas tasar ndax nag daal dinay jonkanal réew mi nga saxal suñuy force de défense et de sécurité wàññi doole ak cëru sunu magistrat yi ci réew mi waaye tam nal opposition bi ba maar day taali 2024 loo ci mënti waxit Sénégal dina am liberté am dialogue dil bi ànduñ ci troisième mandat bi ànduñ ci libéré leen détenu politique yi lii la Bougane Gueye Dany wax l'indépendant yéen kaay naan man en tout cas fi mbir yi toll nii moom président Macky Sall day ma ngay xaajale yeewi askan wi ba maar day taali Walf Quotidien naan man berit Ousmane Sonko professeur Mary Teuw Niane fi mu ne daal dialogue bi ma nga nar ña nga xam ni dañuy soppeeku à tout moment nu leen neex neex mel le point yéen i kaay daal di jébbal kàddu Maodo Malick Mbaye muy xamal Ousmane Sonko mi Mimi Touré naan leen daal di boycotté dialogue politique bi day xaru la Maodo Malick mbay ci le point naan opposition bi dem leen wuy ji président Macky Sall mooy dëgg ndax fi mbir yi tollu jàpp ne mën ngaa gasaxal réew mi day yàq sa xalaat la moo Gueye bu ànd defar Sénégal ci l'exclusive yéen i kaay naan bu kenn xalaat tëngeej tëngeej moom fi mu ne daal dinañ koy sécuriser ba maa day taali booba Aïssata Dia responsable APR ca Kër Massar ma ngay woo ñu jox gëddëm Arona Dia di tegaat ko ci kanam ndax président Macky Sall am la mu amoon 2019 réew mi quotidien naan man boobu maire yaa ngi teg fitna askan wi ne tulleeg maale ca liberté 6 commerçant yi nee ñu àll wu yaa moom la maire ba bëgg a jébbal Carrefour l'évidence yéeni kaay naan man ca Podor askan wa nee ñu podoor daanaka dara amatu fa beneen surtout Baye Niass di attaqué Baye Ciss ne la muy def ci liggéey ca Medina Baye doxul booba ca Thiaroye sur Mer libéraux yaa ngi fa yekkante mar day taali Karim Missi ci boppam ne député bii di Ndiaga Niang moo fa bëgg def buur ak bu mi duñu ko nangu di taxawal ay secteur yoo xam ne fi collectif la ci lu ñu war a def juróom fukk ci ay nit moom Ndiaga Niang di wut fukki nit ak juróom jàpp ñaar fukki ngir taxawal secteur Adama fay ak union karimiste yi nekk foofee ci Thiaroye sur Mer naan nag direction bu parti bi moo ci war a wax ndax tànk Ndiaga Niang mi ngi jiite parti bi foofee suux lay def fi mu ne nag parti démocratique sénégalais mi ngi ci ñetti appui ci Thiaroye sur Mer daanaka nërmeelu yegg teer moo ci des ñetti junni ak juróomi téeméer ciy baat lañu jóge woon 2014 fi mu ne daanaka junniy baat na leen 2022 loo xam ne parti démocratique sénégalais musu ko am Thiaroye caaroy géej ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm